alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala mbokku téléspectateurs yi nga xam ni yéen a ngi ñuy seetaan moo xam ci DBT ngeen ñuy seetaan moo xam ci Leeral TV ngeen ñuy seetaan dinañ am jataayu koor di ci fàttalante ci suñ mbiru diine ku ko bëgg a topp dàkk ko ci DBT TV wala nga dàkk ko ci Leeral TV incha allah rabbi ci weeru koor wi wassalaamu aleykum wa wa barakaatu jataayu koor di ci fàttalante sun mbiru diine alhamdulillah wassalaatu wassalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala mbokk yi jullit bi bu ko yàlla defalee xéewal war na ko ci sant bu baax a baax dafa yàlla daf ñoo defal xéewal bu rëy nag boo xam ni kenn ku ci nekk ci ñun ci julli ñi tey ci àdduna bi yaa ngi doon ngéejowoo mu am yaa ngi doon mébét mu am waaye yaa ngi doon am kersa safaan ba am ci kanami ñeneen ñi nga xam ne bokkook ñoom diine loolu mooy lan mooy xam ngeen ni julli ñi nin doon wuutee ci seen tëbaski ci seen koor ak seen kori ñu wuute ñu naan jullit ñi ci àdduna réew sàngam wor na eh, bis sàngam réew sàngam noonu di ko gis di ko dégg mu nekkoon gàcc bu rëy mbir mi di tar ba àgg ci mennum réew ñi woor bis bi ñii woor beneen bis ba mu nekk lu kersaw ñu dem ba mu yàgg sax ci benn dëkk ci benn quartier yeesaa sax ci benn kër ñii woor bis bi ñii woor bis bi te ñoom ñëpp di ay jullit ñoom ñëpp gëm alquran gëm sunna yonent bi sallallahu alayhi wa ren nag ñu am lu rëy ci kooru ren gii nga xam ni kenn ku nekk war na am yëg-yëg boobu mooy xoolal adduna bi yépp ña ca penkook ña ca sow sharqan wa garban ña dëkk Amérique ña dëkk Europe ña dëkk Asie ña dëkk Afrique ña dëkk Australie fépp fu jullit nekk ci àdduna ku weex ak ku xonq ku ñuul ak manti doon ba ci Chine ñoom ñépp ñoo bokk benn bis bi ñu ume koor muy alxamis alxamis le 23 mars 2023 ñépp ñoo bokkandoo benn bis bi ñu um loolu lañ cey mën a jànge lu bari la mën nga cey jànge ni nii mu amee nii kon loolu lu mën a nekk la te lu mën a wéy la lu mën a wéy la ndax weer wi moom benn la julli ñi kon mën na noo woorandoo waaye mën na noo woreendoo li ñuy rawante ay waxtu la réew sàngam ak réew sàngam ñaari waxtu lan rawante réew sàngam ak réew sàngam ñetti waxtu lan rawante ñun ak France ñaari waxtu lan rawante yeesaa sax du ko mat ñun ak Arabie Saoudi ñetti waxtu lan rawante ñun ak euh, Émirats ñeenti waxtu lan rawante ñun ak Amérique ñun ñoo ko rawee ñeenti waxtu noonu maanaam lay demee kon ñun ñépp war na noo mën a woor parce que ñoo bokk benn bis bi mais yeesaa nag day am yu siiw yoo xam ni du waroom xam-xam yi ñoo ko wax de doo ñëw di ko fekk ci jataay waroom xam-xam mais nit ñi ci mbedd mi nga xam ni ñoom du ñuy waroomi xam-xam du ñuy dongaay xam-xam waaye waxtaan ak jataay bu ñu toog il faut ñu wax ndax euh, dañuy bëgg ñu wax ni euh, ñoom it euh, am nañ ci gisin am nañ ci xalaat yooyu nag buy dem ñu koy dégg mu dem ba mu yàgg da ngay dem sax ba jàpp ni lii kat ndakate xam-xam la fekk sori na xam-xam xam ngeen ni ñu bari dañ daa dégg ñu naan ñu nag waa Arabie Saoudite mënuñoo bokk woor ndax bokkuñu waxtu wu ñuy julli kon ñoom il faut ñu jiitoo ñu benn fan ñoom bu ñu wooree tey ñun suba leen war a woor wallahi loolu doo dégg wenn kenn ci boroom xam-xam yi ma koy wax. koo gis ma koy wax rek jàppal ni maanaam ku taxaw rek ni il faut rek ma wax ndax da ci am xam tamit dañuy ñeme micro te ñoo xam dañuy ñeme wax dañuy dëgër fit. dañuy toog dara rek xalaat ko wala géntu ko rek wax mais boroom xam-xam yi lu ñuy wax mooy suñ ko gisee nañu woor suñ ko gisee nañu wori kon wax jooju moom même su fekkoon ni am na ñeneen ñu koy wax moom léegi dañ ko war a jël la ma sànni fële parce que moom périmé na li naan wax ju périmé la périmé na parce que ren moom wax dëgg yàlla ñun ñëpp muy lu neex nag muy lu neex ci xol wallaay man dama koy wax di yëg cafka gema ci maam jëma ci am parce que ku sañoon yow ak sa ñun diine yépp ngeen bokkandoo li ngeen di def comme ni ko bi doon defee ak ay saxaabaam dafa neex kon nag il faut ñu ñu ñu ñu ñu occasionné wu ci bàyyiloo ci xel kenn ku ci nekk ci julli ñi ni ñu gën cee bayyi xel wax jële ñu xam ne wax ju périmé la ñu jël tëg fële ndax loolu du wax ju am boo doon lu am kon ñun ñii du duñu woorandoo ñun ñëpp ci àdduna bi tey jullitu chinois bi jullitu américain bi jullitu européen bi jullitu naar bi jullitu africain ñoom ñëpp ñoom ñëpp tey euh, alxamis lañu ñu ci année bi kon wax jooju su fekkoon euh, daa nekk ci biir saako pombiteer ñu ni kon da koy yàq nañ ko génn sànni su fekkoon ne dafa nekk ci saako soble ñu ni da koy nëbal nañ ko génn sànni kon du wax ju am du wax ju tegu ci xam-xam du wax joo xam tamit di nga dégg kenn koo xam ne ñi ngi koy askanale diine mu koy wax waaye euh, gaa yi dëgër fit ci mbedd mi rek ñoo koy wax saa tamit comme di ngeen ko gisee sun yenn télé ak sun rajo yi di nga gis koo xam ni benn aaya lay xam ak benn xadis ñëw euh, tàmbali di wax ci diine ji su ko defee nag mu indi ay musiba yu bari indi njaxas yu bari ka nekk ca këram toog di seetaan du xàmmee ka nekk ca këram toog di déglu du xàmmee danaan dégg naa ko ca télé ba dégg seetaan naa ko ca télé ba dégg naa ko ca rajo ba kon euh, ñu ngi santaat yàlla subhanahu mi ñu defal xéewal boobu waaye yàlla na yàlla na ko yàlla saxal waaye nag fa bi maa ay diikum de ñun ñoo ko war a sabablu pour yàlla saxal ko ñun ñoo ko war a sabablu te jàpp naa ni nag buñ ko defee incha allah rabbi yàlla jàppale ni ci parce que ci jamono yonent bi sallallahu wa sallam benn koor doo nga doon am benn korite doo nga doon am benn tabaski doo doon am ci biir madinatu rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te moom lañ ñu royloo laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana wa ma aataakum rasulu fa xuduhu wa ma nahakum anhu fantahu yaa ayyuha alladina amanu atiu allaha wa atiu rasula wa ulil amri minkum ak yeneen laay yu bëree bëree bëree bëri fal yaxdari alladina yuxaalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adabun alim wa man yushaqiq rasula min bacdi ma tabayana lahu alhuda wa yattabi gayra sabili almuminina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa saat masira ak yeneen laay yu bëri yoo xam ne yépp dafay wane ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy suñ royukaay nan ko roy te bu ñu wuuteeg moom ci dara ndax wuuteeg moom musiba la yal na nu yàlla dimbali ba doon wuuteeg moom hada wa sallallahu wa sallam ala rasulillah ñu leen di jox dox daje ba ëllëg wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu